fas yéene dikk ci nañ ko baaxo ak yéen ci laay biirante ci diggante jullit ak moromam ngir jëmm yàlla ji fas yéene leen laay biiral ci ay secret niñ ko baaxoo defee di wax ni rek niñ ko daan waxee jugun ngir feeñal lu nëbb lu mën a ñàkk génn waaye dañu xol lu ñu mën a jëriñoo toj leen lool ñu génn leen ko incha allah bisimilah yéen ci suñu mbokk yi nga xam ne ay étudiant lan ñu ngi doon ko ci ñun di jëm ci jamono yi nga xam ne ñoom dañoo ci wàllu ñuy def la ñuy wax imtixaan tubaab bi di ko wax examen maanaam dañoo jëm ci waajtaayu examen nañ ca sàkku yóbbal ñu fas yéene leen ci indil ay leeral yoo xamante ni dina am solo lool buñ ko jëfandikoo yàlla mën naa jàppandal la ñuy jot mën nañ ko am incha allah te lépp jóge ci alxuraan bisimilah ñu indi leen aaya bi nga xam ne mooy aaya bu mag mooy aaya bi gën a gudd ci alxuraan nekk ci suratul baqara ci aaya deux cent quatre-vingt-deux noonu ma ñu ko rek ngir bëgg mu jàppandi ci yéen ayabamina kwa yakira ay warsalanyewe mingene pe ayu allazina nekk ishaddayantum ba ci wallahi bi kulli shay'in alim ay bi ngeen gudd ci alquran ngeen ko binde ginnaaw bi ngeen jiitalee fatiha ko yoon def ko saafara te naan ak insha allah koo def di nga am ci kàttanu yàlla insha allah bii tamit mi ngi nekk ay baat yoo xam ne mi ngi nekk ci isib ñuy wax xul ma nekk ci biir alquran ñu koy wax ilayhi yashhadu kalimu tayyib wal xamlu saalihu yarfa'uhum ñu koy bind bind mu sew ci juróom-ñaari kayit yu ndaw bu ngeen nappee def ko ci doomi tàndarma nga def ci doomi tàndarma ngeen di lekk tàndarma ya ci diir boobu ci biir doomi tàndarma ne bu ngeen ko ci def da ngeen euh, xar tàndarma bi doomi bi ngeen dindi ko ngeen dugal ko ci biir tëj ko ñaari baat yi tamit noonu nañ koy jëfandikoo muy wa kafalaha Zakariya nekk ci soot Maryam dañ koy bind buñ ko bindee ñetti yoon ñu koy bind ci ñetti foo yu ndaw def ko ci ñetti doomi tàndarma di ko lekk diir boobu incha allah ko def di nga am ci kàttanu yàlla ba léegi it lii yoonu faj aajo la ci ku am aajo joo xam ni da koo jaaxal lool te mu nekk dong daara mu nekk koo mën na xam na tuuti ci alxuraan ndax dañoo xool yi yoo xam ne yomb ba ñëpp nuñ ko mën a jëfandikoo ñu indi leen ko day def day naafila ñaari rakka bind mako fof nak way waaye dina ñaar rakka mu mu jang ci fatiha ya. ak wadduxe juroom ñaar wala euh juroom ñent muy nof eh, bu ko neex mu ne wadduxe hasta wala wasi rek mu jang jàng baax wadduxe wala wadde ba sha bi jeex ya. bu fe mu def istighfar sa def salatul fatiha sa daal di jàng alhamdulilahi rabbil alamin ak sa yu ba ci iyyaka nahbudu wa iyyaka nastain mu baamu iyyaka nahbudu wa iyyaka nastain wax na treize arab laa ko bindee non ba noppee mu mottali saare bu ko defee balaa semaine bi mat dina gént ab sarax bu génnee sarax ba incha allahu taala aajoom dina faju ci kàttanu yàlla incha allah waaye bu ko def nag bu mënee sol yére bu weex tàll wala mu am perkaal def ko moo gën te mu taayal taal cuuraay libaan waaw cuuraay bu neex parfum parfum te bu koy def du wax du gestu du dul daa noppi du wax te du gestu du dul daa pare waaw kon incha allah tey loolu la ñu indiloon mbokk yi. di wax na ngeen abonné ci chaîne bu yees bi nga xam ne ñoo fas yéene leen indil ay njëriñ yoo xam ne leen koy jëriñoo ngir jëm yàlla ji rek jërë ngeen jëf